ginnaaw ba ñu amalee seen ab randonnée pédestre ci alxames gi ñoom ñii di sages-femmes yu Bambey yi amal nañu bëccëg boo xam ne consultation gratuite lañ ca def ak université Aliou Diop nag ñu dem fa am fa lu toll ci juróom fukki poche deret yoo xam ne étudiants yi ñoom ñoo ko may soxna fay moom mooy seen njiit. ni tamit ñu ngi remercier amicale des étudiants yi nga xamante ne tey ci suba dañu doon def am nañu au minimum poche de sang. ku xam deret ni mu amee sox lii nii njëriñ jigéen ñi dañuy jële fi jigéen yóbbu ko Jurbel ñu naan deret amul na ay mbokkam ñëw maye deret tey jii nii étudiants yi ak population bu Bambey dimbale nañu association des sages ba ñu mën a collecter soixante dix poches de sang yoo xamante ni dafay dem banque de sang bu Jurbel pour heure bu jigéen soxlaa deret fii ak weer du ñu ne daa manqué ginnaaw uh, seen ñaari bëccëg yooyu le wax nañu uh, seen i bëgg-bëgg ak li nga xam ne moom moom manqué sage-femme mu yi centre de santé ñu dimbale ñu ba relever ko niveau EPS li ñu bëgg mooy ñi nga xamante dañoo nekk suuf. duñ ay ati ati at mënuñoo fexe ba dugg fonction publique wala mu ñoo fexe ba am contrat sax ministère. monsieur son excellence l' nga jàppale leen madame la MCD dañoo bëggoon beneen ambulance lu ni mel nag El Hadj Abdoulaye mi ñu bàyyile woon bës ba mel ni ko dégg ca saase la woo daas bu ministère de la santé kàddu yi sax la mbay jàkk yëkkati ba tax mbooloo ma yëpp jóg di tàccu Tange bi ci boppam confirmer ñu que Bambey dina am ambulance cette ci incha allah yàgg dara dina ambulance bi. donc alaaji ku ne xam na ne sonn na ci Bambey donc nit ñi dañ koo war a jox nag gëddam ak cëram bu wootee ñëpp ñëw bàyyi li ñu jàpp lépp ñëw ndax loolu rek moo koy dooleel nag au près du président bu wootee nit ñi naan léeg laa. loolu di ko may jëmm li koy may jëmm mooy ni leen di jàppalee ngeen di ko ko dellooyee noonu maanaam di ko ko jàppalee noonu moom tamit. kenn ki nga xam ne nag moom moo di kañ yaaye leen bés ba di njaate ngoom moom it rafetlu na li nga xam ne moom lañ ko def ba pare yëkkati uh, téeméeri junni moog El Hadj Abdoulaye Dia daal di koy jox saa su am yu Bambey. naa Bambey lu ma am Bambey la lu ma mën Bambey la. su ma mënee jug bay woo nit ñi ñuy ñëw waa Bambey la kon nag sant naa leen gërëm naa leen yal na nu yàlla defal jàmm alaaji ja jërëjëf jox na leen téeméeri junni maak alaaji ja ak xeeb ndaje ma nag boole woon saal femme yi matron yi ak ñenn ñi nga xam ne ñoom ñoo di bàjjenu gox yi ak fajkat yi ñëpp jàppale saal femme yi nekk ci diwaanu Bambey waaye nag la nga xam ne moom la ñu bëgg muy ab ambulance ak seeni contrat ñu defaral leen ko El Hadj Abdoulaye Dia nee na dina ca taxaw moog Ndiaté Ngom mi nga xam ne moom la ñu ñaari bés yi ñu jagle woon sages-femmes yi nekk nekkoon alxames ñaar fukki fan ak ñett ak ajuma ñaar fukki fan ak ñeent ci weer février deux mille vingt